xam nga autopalpation jigéen bu ne du n'importe quel moment nga koy def soo gisee sa règle ba pare euh, ba sangu set euh, mettons le septième jour fekk euh, tension mammaire bi wàcc donc jigéen bi dafay summeeku ba ci ndigg li jàkkaarloog seetu parce que fokk nga tàmm di xool sa bopp tàmm di làmba sa ween pour lépp loo làmb mhm. loo daj ci sa ween euh, nga dem kër docteur donc soo defee soo sumee ko nga xool ci kalam nga xool nga wetu xool sa ween yi nga sëgg yëkkati sa ay loxo ba nga xam ne ne su fekkee ne euh, der bi ci sa ween dafa soppeeku walla mu tàng walla nga gis euh, siddit ci gën a génn mhm. loolu danga ci bàyyi xel léegi kuy euh, def auto examen des seins mooy auto palpation boobu de kenn warul bës ween bi. Hmm. da ngay tàllal sa loxo. nga divise sa ween en quatre parties ñeenti pàcc ngay diviser de manière virtuelle ah. hmm, hmm, nga commencé ci biti ci kaw ngay palpe dangay ngay bës nii ba daj grille costale bi ba daj yax bi nga wër ween bi yépp nga ñëw ci cuus bi tamit bës ko. loolu le loo gis mu roulé ci suufu sa ay baaraam loolu le war nga ko bàyyi xel nga dem kër docteur parce que su mun nga dangay daj palpe yépp doo daj dara léegi nga jël sa baaraam sa loxo nga def sa euh, baaraam yi nii nga jël sa poqataan nga raakle ko pour xool ndax amul caxar mm-hmm. parce que bi dafay wane ne cancer bi mi ngi fi te cancer bi commencé na law. Mhm. donc yenn saa yi da ngay gis nit ñi nga xam ne ne am nañu caqar te amuñu euh, dam dajuñu donj parce que cancer bi mun na tuuti. Mhm. ba munuñ ko daj. yenn fokk nga tamit nga jël sa ñaari baaraam jël sa cuus bës ko parce que ndox bi su amee écoulement ndox buy génn parce que ndox la mun na nekk dëtt. Mhm. mun na nekk deret. mun a jaune wala mu weex tàll yooyu yëpp euh, surtout deret bi moom mun na la alerter ne ah am na lu nekk ci sa biir weer mhm. parce que ci au niveau du canal Euh, foofu la euh, mooy cancer bi fa lay commencé di tàmbali. Mhm. ba doog a dem feneen. Mhm. donc auto examen jigéen bu ne war na ko def saa yu gisee réglam ñi nga xam ne ne dem nañu ba bàyyi fóot. Euh, ñoom dañuy tànn benn bés ci weer bi rek. ñu def auto examen de seins mm-hmm. te jigéen ñu ngi gis léegi ñiy ñëw en consultation ñu bari mm-hmm. ñoom auto examen la ñu def ba daj dara ñëw consultation te biñ suñ ko saytoo ñu gis na ne cancer la woon mm-hmm. donc te cancer yu ndaw yooyu le mun nañu sauver nit ki voilà donc loolu moo tax nag mamographie bi foog ma ñëwaat ci pour xam euh, intérêt wu mammographie bi rajo ween boobule rajo ween bi dafay gis tumeur bu tuuti tuuti. boo xam ne loxo du ko daj. loxo du ko daj te jigéen bu am ñeent fukki at war ba euh, juróom-ñaar fukki at ak ñeent war na mun a def auto ex euh, rajo ween boobu ñaari at yu ne soo ko defee ñaari at yu ne daf lay protéger nga xam ne ne su ñu gisee tumeur bu tuuti. du ñu soxla defal la chimiothérapie. Mm-hmm. du ñu soxla daggal la ween bi dañuy tonn tonni fi tumeur bi nekk complété ko par la radiothérapie mhm. donc mais soo demee am ay donjo yu mag foog ñu defal la chimiothérapie bi nga xam ne ne da ngay sonn nga ñàkk sa karo mhm. nga ñàkk doole anémie ba pare ñu dagg sa ween doog la defal radiothérapie mhm. nga doog ñu suivre la donc euh, soo tàmbalee fajum cancer balaa ñu lay wax ne wér nga foog ñu topp la ay at ba ñu ne na wér nga péng